mon frère. la ah. vie n'est pas facile hein. c'est très très difficile. Eh, ah, c'est ici que j'habite. c'est mon appartement. <laughs> attends je vais ouvrir la porte. tu vas voir viens. c'est ici que j'habite.

ñii ñoo xam ne seen yoon seen yoon ñoom duñ ko dundal seen yoon newu ci chim ko ci ala defon pitax nga xam lepp deug la ay way ndey Samba Warna la warna la bu ma bat anday kumba wa soxna si lu way xamadi xamadi xamadi nak xamni ni kër nak bo ci duggé da nga wara nuyo ni ma sama xaalis laa jël see. ni ngay jël see sa xaalis. nii laa koy jël see. di ma woowal adduna ci ndey ku ma newu fi. dama bëgg nga dimbali ma laa yaa ngi may dégg yéen ñi nga xam ne kenn nawloo leen ma jël sama xaalis di ko lebal sa jabar laa lay wax su ma dellu see suba dina xam ne lépp dëgg la. léegi ndey ku ma newu fi. sama yoon newul ci loolu sa biir bu rey ngay mel ni mbott bu dee boo ma ci boo ma ci boole boo ah waaw waaw jërëjëf nag ah ndey kumba na ma torop ndey kumba sax deful dara. boy ak boy booy ak si dama lay xamal ne la. gis nga ko judd ci tagar. mag mhm. ci pajaas. Mhm. lo yor rek mat laa lay jar ndax oh. namm lu nooy. def dama namon lu nooy. <laughs> billahi donc maintenant tu sais moi je vais essayer d'aller. tu as dit la vérité il est là je vais aller jaay café. man mom dana la ñaanal. ah danaa la ñaanal gratuitement te yàlla y' a pas de problème café gii ah. yàlla nga dem bam nek nekk usine.

bañ suufi ragal naa ko torop waay eh bone alhamdulillah ay ilaha illa allah ay yan ma ye lii de du murmuraake la li kan duma ko wax fanan ci carton yow yam ci mat ni nii waaye kii moom ñam benn bi nam naa gaañoo yàgg na tudd noonu yi de bismillah ay ay yàlla alhamdulillah i allah wooy soo sàlli wet yi daa mel ne ci mburug ci ne wéq rek da ngay jaay da ngay jaay peegar pe booy ags lii saful ci ags booy génn ñëw jàkkaarloo man fay ma sama occasion maa ma defanteeg yow li may wax yëpp yaa ngi koy dégg bu dee góor yàlla nga sa ñeme nga génn ñëw jël sama bakkan maa ma nangu sa bos tax nu may offensé de lee yow doo góor yàlla yow ba ak sa diirutu ma benn ngànnaay ñëwal ak ak sa kaay jël sama bakkan maa jël sa bos na nga xam ne foo toiletoo mor sa sagaru eh, tayukaay nga yeew sa ndig yëkkati sa tubay ak sa boo dee góor yàlla ñëwal sa sileen maa bu xasaw yow mu yaam yow mi camembert yow mën naa fenn Mm. moo gàllax ndikoo sax amul caay waay ça moo mon bal xiis. oui chéri. tout d'abord maa ngi excusé wu si retard bi. amul benn problème. xam nga sama employé laa dajale woon. Mhm. di leen teg ci axe kenn par kenn. Mhm. moo tax ma tardé. amul benn problème chéri yow tamit gis nga moo la doon xaar fii ba suba dinaa la xaar parce que jaral nga ma ko. kon bébé mero. ne ko ma yow tamit. Euh, Balxiis euh, tegal fii pour ma wan ne mero.

Allah! laa ilaaha illallah lim tegtal la lii lim <laughs> tegtal la allahu akbar ah jëm. waa bébé duñ jël benn affaire lenn luñ lekk dama xaw a xiif. nga xiif. j'ai un peu faim duñ commandé dara. waaw même man mii sax ndekkiwu ma dama xiif quoi. Oui.. on va commander quelque chose de léger, quoi. Non, non, bébé, on va prendre quelque chose Je léger. J'ai faim. Ah, tu du lourd ah, Ok. Voilà, tout justement. Je mhm. sais, Diop Fall, employé. Bon, je suis dit Pour axe Khombal, je d'argent. Mhm. Ne t'en fais pas, je vais un faire mais en cours de route dafa désaxé parce que ñaari roue avant yi mu yéegoon ñom ñoo bënn waaw dafa crever pour assurer sécurité nak mané ko mu fanaan Thiès mais demain matin su né ciap man may jël xaalis bi joxo mu ñew tek ko sa loxo yoro 3000 commandé rek ñu lekk tuuti. yéegali gis nga yow gey kuma ma yab nga. pardon kuma ma yab nga la wax. xol nga ma ci kaw ba ci souf bien sûr xol nga ma ci kaw ba ci souf bien sûr. gis nga yow yoroo ko amoo ko mënoo ko gis nga da ngay xaar ba nga le saa moo le ga woo ma. mais Balxiis un homme qui gère trente cinq emplois. bu ma nee Balxiis dégg nga ba ma may ma jàll. qui gère trente cinq emplois nga naan ma mënoo ko. xoolal gérer say emplois man je m'en fous. caa pop pop pop pop non tey accident bi des ak